motul laa. waaw sama métier moo doon defar lu nekk ci Pétavin angle Jean Jaurès nekk naa fa depuis 1980 benn bés ñu commencé di ma ah, jëlee nañu ma fa jël boo xam ni du yoon parce que li ma jaaxal mooy ñu fa bàyyi ay ñeneen waaw na nga épargner ñeneen man nag en tant que handicapé moteur. ci loolu lay dund yàgg bi nu fa yàgg jële depuis bi xamee ni beneen maire yi ñëw na ren ne ma léegi yow fii fokk nga jóge fii parce que booba taxaw nañu rek ne man fokk mu jóge fii xaw ma lan moo ko waral li li ma jaaxal nag dañu fa bàyyi ñoo xam ni ñooñu ay valide lañu man handicapé moteur la konte woon ci loi d'orientation sociale mais ñoom dañ ni ma loi boobu n'engage que man ñi ko gëm ma ni leen kon dimbali leen ma ngir yàlla ak sëñ Fallou nu ñu ma loolu da nga yoonu sëñ Fallou nekku ci depuis booba nag laa jaaxle ñibbi si Thiès. place bi mi ngi nekkoon Pétavin angle Jean ci euh, ci euh, Arfine Rail Arfine Rail foofu ku fa dem koo laajte xam na docteur Birké docteur Lunette yàgg naa fa trop te foofu loolu rek mooy sama métier ñaanu ma kenn dara mais comme ça leen ma fa jëlee fab sama cantine sànni te nga samay bagage maa ngi nii nag di traîner sama assuré sama dund njaboot seen njàng tam mi ngi nii dañ leen mën a menacé pour génne leen parce que aw mooy lu ma leen inscrire te kenn ki déwén lay waroon a def bagam dégg nga ki ci des daaw la am BFM am te depuis loolu nag man maa ngi nii depuis deux mille euh, euh, douze depuis deux mille douze bi euh, mairie Dakar toogee ci la ñu commencé na ma fokk ma jóge fi tey def nañu loolu loolu nag man moo ma metti ma bëggoon ku ma mën a dimbale nag man Latir Diaw Guèye sama numéro téléphone 766 38 09 77 766 38 09 ku ma mën a dimbale ci man ah, impunité boobu ñu dindi ko ba man mu dimbale ma rek man ma mën a toogaat sama place di liggéey wala ku ma mën a dimbale ba ma am lu ma mën a ah, doxal ak sama njaboot mën a continuer sama éducation ñëw rek man nga dimbale ma ci. benn doom laa yor ah, ah benn jabar laa yor ak cinq gos. loo leen di dundale mu ne man xaw ma du may def léeg-léeg daal ñu añ. léeg-léeg duñu añ de léeg-léeg daal nu lekk léeg-léeg duñu lekk actuellement boo demee kër ga nii femme bi taalagul waaw te depuis mosunoo ñàkk añ reer ndékki ñoom ñi ma ko def nag ñoom seen njaboot wër na ma ni na nga leen assurer seen lépp te ma defee nag ñëpp benn lanu xanaa man bu bu luñ ma mere mere respecter loi bi assemblée kay bu taxawee signé loi d'orientation sociale pour handicapés yi waaw man wax dëgg yàlla yaakaaroon naa ni loolu kat bu nu ko defee dafay war a ànd ak bi lu am sax fu ñuy mën a dem di jooy. waaye fi bañ la fa jëlee kuñ fa bàyyi. na fa bàyyi benn pël fuuta ak benn lonaas ak benn naaru gànnaar te naaru gànnaar beeg lonaas bi noo ma gën a ngand cantine sama cantine ma ay 1 mètre 10 rek la woon waaw ba ma leen waxee dañ ne ma loi boobu ça n'engage que yow mi ko gëm man depuis ci la xam ne ñii bu ma leen jëmee toppkat boo moytuwul a ah, dina amaat problème bu beneen problème bu bokk la bii fi mu ne nag sonn naat trop en tant que handicapé moteur ku ma mën a dimbale rek ku ma mën a dimbale ba bii problème jóge ci man wàcc ma te ay nit dong na ma ko teg ñoo xam ne dégg nga pour man ay hors la loi la ñuy mën a doon parce que loi boo xam ne lii la tëral yow nga taxaw ne lii du am te te ni institution nga man wax dëgg yàlla ah, pour respecter la ah, xëy na bu ma ko dee def tam dafa fekk rek mënuma bañ a respecter nit Thank you.